assalaamu aleykum ñi ngi dellu di nuyu mbokk yu tedd yépp di dellu si waat di leen ziyaare ci weeru barke bi ñu nekk xam naa ñu dellu si waat rekk ca lañoo tuddee leçon du ramadan yàlla dogal tey ñu dellu si waat ci la ñoo tuddee alhajar al aswad mu mel ni jotoon nañ ci indi benn njàngale bu yaatu waaye li des rekk ci conclusion bi mooy alhajar al aswad li mu jot a ci monde xayb plus de milliards d'années ak ay millions d'années yi mu am ci monde shahada yépp ba imaam al mahdi di ñëw récupérer essence mystique bi nga xam ni ci ruuxam la bokk yàlla dogal boobu énergie bi nekkoon ci alhajar al aswad énergie boobu dellusi ànd ak ruuxu imaam mahdi mais ni mission yi di doxe ci diggante imaamal mahdi yenent yàlla isaa ibnu mariam ba àdduna war jeex moo tax bu desee ay waxtu pour àdduna tukki yàlla dina yabal nawamis yi nga xam ni ñooy constituer brigade spéciale bi ànd ak ñi nga xam ni ñooy missionnaires yi te yore mission universelle mais bu nawaamis yi ñëwee ànd ak benn escorte malaika ñoom dañuy jël si doj bi ci boppam di hajaral aswad bu ñu ko jëlee fekk des na ay heure pour àdduna tukki ñu delloog doj bi yóbbul ka borom bi hajar al aswad bokk na ci doj yi nga xam ni bu ñu ko récupérer ci monde shahada du ñu ko yóbbu rek directement centraliser ko fenn ci milieu xayb bàyyi ko noonu bu ñu ko récupérer fii ci monde shahada escorte bi day dem ba ci borom bi subhaanahu wa taala présenter ko doj bi bu ko présenté doj bi ba noppi borom bi sant malaaka jibril alayhi salaam mu convoqué ñeent ci malaaka aljana yi bu ñeenti malaayika yi agsee jibril alayhi salaam ci ndigalal borom bi subhaanahu wa taala mu jël hajar al aswad jox ko ñeenti malaaka yooyu malaaka yii nga xam ni ñaar lañ féete ci kanam tàllal seen laaf jàpp ci benn côté yeneen ñaari malaayika yi féete ci ginnaaw doj bi tàllal seen laaf jàpp ci beneen côté bi bu nu jàppee ci beneen côté bi ñiy jàpp ci kanam séparation bi ñu jàngale woon ci hajaral aswad muy ñaari parti yi benn bi jóge aljana ak benn parti bi jóge xayb ñu dajale ko muy benn parti malaayika yi suñu jàppaatee noonu doj bi ñaari yële féete ci kanam suñu doxee dem benn parti bi jóge woon aljana moo leen di topp kon doj bi day séddaliku ca digg ba ñee nga xam ni ñoo féete woon gannaaw ñoom it bi ñu jiitu ci kanam demee ñoom it dañuy gis ni benn parti lañu ñu tey ci doj bi jibril aleyhi salaam joxaat leen ndigal ñi nga xam ni ñoo féete ci ñi woon ci kanam ñoom ñu ànd ak doj bi di alhajar al aswad dem ba biir aljana ñu dugal ko fa bu ñu koy dugal aljana ñoom malaayika yi ñi ngi koy yóbbu ci place bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ca place ba ñuy tuddee wasila te nekk ca biir illiyin bu nu indee doj bi ñoom malaayika yi ñi ngi koy teg genn wàll gi ñi ngi koy tege ci bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin iyaaka naabudu wa iyaaka nastain ihdina siraata almustaqim siraata allazina anamta alayhim xayri almaxduubi alayhim wala daalin amin ci fatihatul kitaab la tegee doj bi jàng boobu ñaari malaayika yi di jàng fatihatul kitaab boobu ci bi ñuy teg doj bi ci place wasila ca biir illiyin ci la doj bi di changer doj bi di changer nekk loo xam ni bu doon fii ci monde shahada moom lañuy tuddee genre véranda véranda bu weex tàll véranda boo xam ni fu nekk lumière yi ñu ngi cay génn waaye véranda boo xam ni boo ko xoolee lépp dafay mel ni vitre mais vitre bi mën nga xool à travers loolu la genn wàllu hajaral aswad bi jóge woon aljana su ko malaayika yi delloowee aljana ca parti wasila ca biir teg ko ci jàng gi ñuy jàng fatihatul kitaab genn wàll googu loolu lay mujje léegi nag mu des beneen genn wàll gi nga xam ni ñeneen ñaari malaayika yi ko teewoo nit aljana lañu jóge woon waaye boobu mooy parti bi nga xam ni moom la jibril alayhi salaam jële woon ci mondo xayba bi ma koy jàngale parti boobu jibril ci ndigalal borom bi dafay sant malaayika yi yeneen ñaar yi ñu yóbbu genn wàll googu ba ca ñenteelu asamaan ñu teg fa waaye daf leen di digal moom jibril alayhi salaam ni genn wàll googu su ko malaayika yi dee teg nan ko tege salaatul faatiha moo tax malaayika yi suñu ñëwee ci genn wàll gi nga xam ni mooy beneen parti bi ci xajaratul aswad bi féete ci mondo xayb nga xam ni fa la jóge woon ci origine am buñ koy teg dañuy ñëw teg hajaral aswad wax ni allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatixi lima uxlix walxaatimi lima sabaq naasiri lxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi aladim bu ñu ko tegee ci ñeenteelu asamaan doj bi day tijjeeku ci jàng boobu ñu jàng salaatul fàtte mais doj bi su tijjeekoo muy genn wàll googu lépp luy trésor sacré dañ koy gis ci biir doj bi dañuy yëg ni ndekete kon bi ñuy yóbbu genn wàllu xajaral aswad bi genn wàllam gi jóge woon xayb ndeke bi ko malaake yi di présenté borom bi ànd ak nawaamis yi ndeke borom bi dencaale na ca ca côté bi féete xayb jaasi sayyidina aliyun bi nga xam ni moom la daan yore jaasi sayyidina aliyun ba mu daan jeexaati ndax bu ko malaaka yi tegee danga koy gis ci biir waaye yére ba nga xam ni it ba ni jàmm sayyidina Hussein yére ba mu soloon danga koy gis ci biir doj bi mais da ngay gis it yeneen trésor yi nga xam ni ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jóge muy bokk na ca ba ko xaañee toqitu deret ya ba ñu ko daan sànni doj toqitu deret ya daan jóge ci oomam ba ñu fellee bëñam tokkite bëñ ba lu ca nekk ndekete da ngay gis ni ay trésor sacré la ci xay ba yoo xam ni borom bi ndeke centralisé woon na ko ca présentation boobu malaaka yi defaloon ko jot na ko denc ca desit bi nga xam ni mooy genn wàllu hajaral aswad bi féete xay ba malaayika yi tege ko salaatul fatiha mu constituer lu mel ni benn musée waaye musée boo xam ni dañ ci exposé bépp matériel wala bépp arme walla bépp loo xam ni jëfandikukaay la lu sacré te nu nangu ko ci histoire sainte fa lañ koy exposé ci ñeenteelu asamaan loolu mooy doon mujj hajaral aswad genn wàllam nga nekk ñeenteelu asamaan malaaka yi tege ko salaatul fatiha genn wàllam nga nga xam ni moo jóge woon aljana dellu aljana nekk veranda ci place wasila bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy mujj hajaral aswad organisation boobu daañ ko defal doj boobu di hajaral aswad quelques heures avant la fin du monde kon lii mooy organisation euh, mystique bi nga xam ni moo ciy dellu ci histoire sainte kon ñi ngi dellu di ziyaare mbokk yu tedd yépp dellu si woon rek ci la ñoo tuddee leçon du ramadan di ñaan yàlla ci barke yonent bi barke Mawlana Cheikh Ahmad Tijani mu def nu nu nekk taalibeem xàqan may nuy dund ak moom dund zahir ak dundu baatin may ñuy dund ak moom dund abadan ba biir illiyin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu